asalaamaaleykum sama mbokku sénégalais yi man la mam Thier ma len di ziar yéen ñep di len nuyu ku ci nek sa tour ak sa sante bëggoon def ben contribution bu ndaw rek à propos du coronavirus di def quelques interrogations yo xamé ne bëgg naa tamit sénégalais yi jëm ci xalaat quoi parce que tay Sénégal mom yombul jël position yenn yi quoi té bo gisé ma jël position bi sax euh, ba nangu ci def vidéo dama sétane barka demb ben jeune ñu wax malachon damay sétane ay vidéo même si xaw xawmako sax muy wax wax ju am solo quoi jël risque nag Bim koy wax sax il ne sentait pas à l'aise boy koy xol bu baax mu wax ne euh, les pays au sud du Sahara muy les pays euh, les pays noirs là ñun euh suñu système immunitaire bokul ak butuba bi donc bo gisee euh, coronavirus bi deful effet Sénégal c'est à cause de cela quoi mu don deug bu wër peng bo xamé né médecins yi ko wax peut-être ils ont peur peut-être tamit lolu seen liggéey la baña titel population bi baña a len ñu jema ñu ñu ñu pour ñu mëna a jël yenn mesures yi en avant et puis c'est bien mais nañu jema a xalaataat quoi depuis un mois ñu ngi am coronavirus biir Sénégal amuñu hécatombe bi am ci réewu tubaab bi ah tay bo ñëwé Londres bu semaine passée rek ñu ngi doon wax ay 900 morts par jour temps yi la wacc ba ay 600 yeeg yoy nga dem Italie mu ngi dogo a ba ay 500 par jour te si biir 500 morts yi sax ñom bo démé dëkk bi nga xamé né sax mo ëpp ay morts muy Lombardie sen gouverneur bi mom néna euh, xawma Fontana néna bu wër bi dé mom day ubbi euh, usine yeeg xam nga liggéey bi day commencer quoi parce que mom mënul tok économie dëkk ba di yaxu quoi. donc euh, xolal lo rek dëkk bo xamé né on parle de 500 morts par jour légui ñun Sénégal on a que ñu ngi koy sant 4 morts gouvernement bi xalaatam yëpp chaque jour ay waxi confinement couvre-feu vraiment c'est exagéré quoi donc ñun comme population ku nekk war nga génne joxe sa xalaat war ci bañ a am dara looy ragal quoi vraiment parce que tamit euh, il faut que ñu def ñaari interrogation bi ci njëkk mooy Malathion wax na ko l'autre jour problème système immunitaire du ma ci sori ñun ñëpp xam nañ ne suñu système immunitaire yi mu mën a résister comme ay bactéries comme ak yenn virus yi tubaab yi yeggu fa mais dafa am benen facteur bo aussi bo xolé statistique nit ñi dé xam nga fini en Angleterre presque plus de 90% ñi dé ñep ils ont plus de 70 ans nga dem Italie c'est la même chose nga dem Angleterre euh, aux États-Unis c'est la même chose donc virus bi ñi gëna nek euh, mak lay lay yobbu du deug donc ñoñu ño gëna jara protéger te ñoñu nek ci nek mak aussi ñu bari ñu ci wër ñi en général ñi nga xamé pathologies. dañoo am ay pathologie ñoñu mom du leen baal moy ñi nga dañoo diabétique ñi nga dañoo asthme ñi cœur donc nit des def confinement ñom ñoo wara gëna tok seen contact ak jeunes yi parce que yi du def dara xam nga jeunes yi du donc yow mag ñi ñom jara donc état bi des def ah, couvre-feu ah mooy ñu créer des mesures yoo xamee ne nit ñi nga xamee ne dañoo am ay feebar ak nit ñi nga xamee ne ay mag lañ ñu gën leen protéger. xam nga bu ma waxuma nag ne feebar bi du rey jeune bala di parce que sénégalais moom da ngay waxe fii mu waxe ne quand tu parles de statistiques peut-être am na benn zéro virgule zéro boo xamee ne am na ci ko am 14 ans am na ci ko am 19 ans avec leur problème sanitaire ak ñàkk problème sanitaire yëpp mën nañ sax dara bañ leen dal mais dañuy ñëw di la indilaat wax boobu quoi bëgguma ci dellu sewaat

parce que max yi dafa cher hein ah, tay ci suba rek maa ngi jënd ñaari max two pound presque xam nga donc lolu dafa cher Sénégal nak bo démé bëgg leen jox ay masque yu bax hein ah, pour lolu am il faut nga financer lolu donc idée bi may joxe moy 12 milliards yi ñi wax ni dañ ñu ko jox mala dañ ko jox euh, sénégalais yi nek ci à l'étranger soxlawuñ ko sénégalais yi fi dëkk bo nek dëkk bo nek ah am aide sociale yo xamé ne bu fekkee ni liggéeyuloo man nga dem nga laaju ko.

waaw wax bi loolu kese la waaw Sénégal tey dafa mel ni ah dafa am benn politique bu ci rax maa ngi gis ay Birima Ndiaye di génn toog FM TFM naan non dee xam nga dafa dee mel ni nit ñi daanuñu dee avant avant coronavirus. coronavirus bii nii ah nit ñaa ngi dee Sénégal ba léegi peut léegi dañ leen relégué ay dee yu série B xam nga léegi moom dee fa sax te deewoo coronavirus problème yow moom xam nga doo fashion koi xam nga léegi lu ñu wax ñu ne coronavirus coronavirus médecins yi dañuy refuser nit ñi. à cause du coronavirus médecin boo seeti sax da lay ragal a euh, ndax coronavirus si cause boobu nag il faut ñu dind ko ci euh, bopp population yi bu fekkee ne nag dafa am leneen lu ci na ñu ordre nouvel ordre mondial mais ce ma gëm mooy ah, yalwaan bi na tamit vraiment ñu mesures parce que ñun Nous yi soxlawuñ ko ñun dañuy copier coller mais booy copier coller da ngay copier lu baax tubaab Nous devons faire ba pare bëgg ñun ñu économie damay wax ak sama yenn frère yoo xamee ne ñii ñu ngi ci géej gi di def ay di def mareyeur ñii nga xamee ne dañuy def euh, maraîchage ko mbay barka démb dama ko yërëm sax nee na ma sa waay ñun nañ sonnee dafa ëpp ma ne ko ah mu ne ma mais mënatuñu jaay dara transport yi tëj nañ leen loo loo béyoon tey day yàqu doo am foo ko jaaye xam nga mais tu tu t'en donc état bi dafa war a dimbali ñooñu pour mu dimbali leen nag mooy mu lever les kii laa bàyyi leen ñuy wàcc vingt deux heures sax bu ñu ko bëggee bu dee dañuy dem tool mbala ubbi poor yi nit ñi di jënd han ah, mu tek fa ay policiers ñuy surveiller nit ñi ñuy tak ay masques xam nga di sorinte ni ñu wara a han ah, yenn contact yi ñu éviter ko mais c'est simple amatul lenen ñun ñi continuer vivre Hong Kong ben dëkk le rek han ah, te ñom ils ont plus de sept millions d'habitants pas même pas dix morts parce que dañuy tak masque te mësuñu tej dara mësuñu def couvre-feu han mësuñu tej sa ay boutiques boutiques yaangi fonctionner lépp ngi fonctionner pourquoi parce que organisation rek la laaj mais bu fekkee ne nag dafa am lenen lu ci laaxu buy nañu xaar nak lolu buñ buñ si buñ ñu ñaan yalla mu gaaw ñew muy muy yalwaan bi parce que ñun on peut pas vivre sans yalwaan su yalwaan bi ñewé Macky Sall président ñu ngi lay ñaan vraiment nga lever affaire yi quoi parce que amul sens nga jënd ay masque yu bari distribuer ko population bi nit ñi dem dellu si li ñu nekkoon quoi parce que vraiment metti na quoi. benen facteur bi nga xamé né tamit il faut que ma ñew ci hein ah, moy euh, la population jeune Sénégal ñun par exemple tay bo démé en monde rural ñu euh, moyenne d'âge bi fofu 21 ans la nga dem en ville mu doon donne ans Donc, ce donc lolu taxna rek ah mu donne un facteur fondamental pour day lutter contre euh, ce fléau muy le virus euh, bo jélé un exemple comme l'Italie Italie un moyen d'âge 45 la ans ce qui veut dire une population très vieille xam nga Italie rek ngay dem dugg ci yenn villages yi ah, yenn yi di gis des populations yo xamee ne gis ciogalu pa yo xamee ko ci lacc atam mune la man mangi ci cent ans cent deux ans quatre vingt le virus bi du yóbbu tay ñom en l'essentiel ñom lay yóbbu donc ñun suñu population c'est pas encore vieillissante comme ça donc nañ jéem profito ci période bi tay Sénégal li du waroon nek politique première am mooy ñu créer des structures yo xamee tay tubaab yi bu ñu soxlay agriculture ñu jox leen bu soxlay ay masque ñu defar yónnee leen parce que ñoom ñoo nekk en en émergence Sénégal nekkul en émergence ñun ñoo dugal suñu bopp ci émergence xam nga muy urgence xaw ma koy waxee ñun ñoo dugal suñu ci urgence donc nañu jéem a population bi vraiment dimbali suñu bopp ni ñuy dimbalee suñu bopp mooy ah ñu des normes claires génne xaalis jënd ay masques la population nous ah, ñu lutter contre ce fléau ce que je lu dire wax ci côté que je côté bi ma bëgg a nak que moom ma que jeexal ci muy stigmatiser vraiment les modes au Sénégal actuellement parce que salté na trop gis ñu bari def ay vidéo man sax que won yi yi ci def vidéo duma parce que dama leen dama am yërmande ci ñom xam parce que ñu ci Sénégal dañ lay daw mais man di tontu Sénégal ñu daw la da nga quoi. waaw ku si dem Sénégal ñu lay daw santal yàlla quoi ñaanal yàlla rek ah te loolu sa jarul ñaan defe naa moom Sénégal boo fa demee sa sa waa kër duñ la daw quoi li ma yaakaar man moom xam naa ki ne saala du ma daw muy sama yaay kooku moom loolu rek doy na satisfaction quoi ñeneen ñi nag ñu la dawee buñ la buñ la buñ la dawee sa poos rek moo ciy sauvé waaw sa poos moo ciy sauvé donc bu mu leen metti xam nga bu mu leen métti bàyyi leen leen nañu dal nañu wax lu nekk lañu ñu wax wax ju ñaaw sénégalais ci boppam moo bëggul mbokkam loolu moom yàllaa ko dogal parce que dañuy gis exemple ci suñu njiit yi boo gisee Macky Sall tey def décret ne moodu moodu bu dee bitim réew ah nañ la suul foofu ah ah nga xam ne kii moo bañ réewam yaa ngi dégg tubaab tubaab yi tubaab yi bi virus bi explosé ah dañu rafrete muy itali France ñëpp ay avion ñii seen doom yi dañoo jàngi woon ñii dañoo defi woon formation ñii dañoo jënd woon marchandise ah wooteel ambassade rek ñu ne la avion tel dina wàcc aéroport tel jël leen feebar ñàkk feebar may gis ay grand yoo xamee ne vraiment muy ñoom xaadim yooyu di ko def victoire naan noo ñun ñoo waxoon Macky Sall bu ñu jëlee jeune jeunes yi nekk Wuhan xam nga di ko def victoire ñooñu dañoo war a rus parce que ñoom gis nañ nu italiens yi di dund ah il y a un jeune italien bu ñuy wax euh, Euh, damay fàtte turam booy bi dafa demoon defi Erasmus mooy xale yooyu di jàng di ans la booy bi am woon dëkk ba affaire bi explo explosé italien yi booy bi di ñibbise si benn vol normal ñu jël température am mu haay ñu ne ko mënoo tukki ñu téye ko fa ci aéroport bi le lendemain l'état italien dafa affrété un avion spécial ak ay militaire ñu dem jëli booy bi bi ñu ñëwee le ministre moo ko jëli aéroport un ministre ñu tendre ko micro mu ne ñun suñu doom duñ ko seetaan muy tumuranke bitim réew te koo xamee ne dañ naan am na coronavirus amul coronavirus so waxee Sénégal nag ah doomu RAM yi li ñu jëkk a wax mooy non ñun amuñu moyen ñun amuñu moyen mais suba Macky Sall bu bëggee jënd mille quatre quatre mille mille mille huit huit ah pour député yi war a dépenser cent euh, trois cent milliards ñu tàccu hey Macky moo bëgg waa réew bëgg amu mais amuñu moyen ñun toujours amuñu moyen quoi ah lu ñu bëgg a def. génn 1000 1000 1000 litres essence pour les députés chaque chaque mois ah amuñu moyen 11 milliards 11 milliards Macky Sall di ko dagg ci seen budget bi gars ne li, mom, da koy yóbbu këram quoi da ko tuddee fonds politique Hein? ñun ñu ne amuñu moyen quoi loo xamee ne Trump ñemewu ko Macron su ko amoon day sabaru chaque jour xam nga ñun ñu ne amuñu moyen quoi mooy mooy dëkk boo xamee ne daal dañ leen <laughs> nañ continuer di nelaw rek quoi nañ continuer di nelaw rek. nañ continuer du nelaw mais pour jeexale ci côté boobu daal moom Moodu sama mbokk Moodu Moodu yi ko mettitlu waaw ku fi sa yaay dawul bu la metti waaw ku fi sa dawul bu mu la metti mais sénégalais yàllaa ko bindee noonu quoi waaw bu mu leen metti bu mu leen metti loolu rek laa di wax di courage fu nekk fu waaye nekk na nekk ak yàlla waaw di ñaan ah yàlla wàcceel ñu jàngoro ji waaw nit nag mën na nekk Sénégal di la yéene lu bon di la waxal lu bon nekkal si njub yaa ngi dégg nekkal si njub nekk si njub waaw fekk ñu lay dégg moom dégguñu la ci lu bon santal yàlla quoi loolu rek laa leen di lancer comme un appel ah nañ ci gën gën a góor góorgóorlu nag nañ ci gën a góor góorgóorlu aussi képp koo xamee ne aussi yàlla def na après virus bi coow li wàññeeku boo demee Sénégal nga jóge ci dëkk yi gën a infecté wu nanga nga sa bopp waaw boo yegsee sa kër toogal 14 jours yoo xam ne da ngay éviter contact ak nit ñi waaw loolu tamit bokk na ci aar sa njaboot waxuma sax aar yeneen nit ñi mais jëkke ko sa njaboot quoi ku mënti dem Sénégal jéem def loolu quoi dama leen ko ñaan. mais le reste moom nit ñi wax yi ñuy wax ci télé yeeg audio yi ñuy yónnee di ñu saaga ndey yooyu yëpp bàyyi leen leen ci biir quoi parce que nit moom mooy am jot di def yooyu mais ñun amuñu jot yooyu quoi maa leen di ñaanal yéen ñëpp jàmm di leen ziar kon nag ba beneen yoon ah